ربا فؤادي وحناني وأكرم بي ربا من قريت اليوم عبدا نبي خديما دواما للجسار إبابي قد قريت اليوم عبدا بشكري وأبي يكوب الآر ونار وصبا نبت لها لله عبدا مراتلا لسجن أكيم أن جنابي إذا سبا أراتل ما دمت أيا وأتيه وعندي بي إبليس أنا متى دبا إليه جاي وهو مخن وغاشم له الملك ثم الحمد والآل قد سبا خرجت بفضل الله من كل بائس وفارق تدبير بيد وجلبا رأيت بي ربا ci ba tey ñoo ngi fii ci Touba Alieu ci bisub euh, ñaan ak fàttaliku jëm ci jëm ju tedd Serigne Alaaji Baara Mbàkke ibn Cheikh Mohamadul Fadal ibn Xaadim Rasoul xam ngeen ni ñu ko tàmbalee ci jàng alxuraanul karim waaye ay ziar sëñ Moustapha mi nga xam ne moo nekk ci bopp njaboot gi mu ngi ci biir mbooleem njabootuk Serigne Touba gi mbooleem cheikh Serigne Touba si mbooleem euh, mbokki jullit yi mbooleem kilifa diine yi aada yi ñu ngi ñëw di ko ziar si ànd ak moom bis bu tedd bi waaye ñu ngi taxaw ak Serigne Saliou Mbacke bokk ci njaboot gi di leeru Serigne Alaaji Baara ñuy ñaan suñu borom yokk ay leeram kon Serigne bi tey ginnaaw bi ñu ànd ak yéen bis bu tedd bi di leen ci ndokkeel bisub tey bi di bis bu am solo boo xam ne taarix dootu ko fàtte ndax jëmm ji yan kàddu ngeen ci yëkkati alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa noo ngi nuyu mbokki jullit yëpp di leen ziare di yëkkati juróomi baat yu ñu lislaam jagleel ngir ñu koy joxal sunu biir mu di asalaamualeykum aleykum rahmatullahi wa barakaatu waaye di jëlal ci ñaan yi ak ziar yi saahibul fadila Cheikh Mahamadul Muntaxa di ko ñaanal yàlla sunu borom mu may ko fannu gudd lool te ànd ak wér waaye noonu lañ koy ñaanalee si abul baraka mi nga xam ne mooy sunu bunt ci Cheikh Moudou dal waaye di ko ñaanal njabootu Cheikhul Khadim gépp rawatina jullit yëpp tey nag ni nga ko waxee léegi rek ci turu Cheikh Moudou Moustapha mi nga xam ne moo nekk ci boppu njabootu Cheikh Moudou Lamine ak mboolem njabootu Cheikh Moudou Lamine bi ñuy fàttaliku ku dut fàtte mukk koo xam ne lislaam du ko fàtte waaye yoonu murit du ko fàtte waaye Sénégal du ko fàtte Afrique du ko fàtte waaye mën monde entier bi kenn du ko fatte muy jëmm joo xam ne di leeru Cheikh Moudou Fadal di Cheikh Moudou Lamine ñu déppee ko Cheikh Moudou Lamine moom Cheikhul Khadim ren nag toll na ci fukki at ak ñett bi ko noppee gis ci suñuy gët ba léegi waaye saa su nekk rek bu ñu nee suba la màggalu Kazu Rajab ni ki tey euh, jullit yëpp ak lu ko jiitu lépp nag jullit dañuy maase di jàng alquran di jàng xasida di jullit nabi sallallahu alayhi wasallam waaye bu nu egsee ci bis bi nga xam ne mooy bis bi nga xam ne ci lañ koy doolee fàttaliku fu waay mën a nekk ci àdduna bi rek te yàlla man loo ko da nga ñëw ndax lan ngir yàlla moo jiitu ci seeni ñëw waaye ngir lu baax waaye ngir relation bi nga xam ne muy alaaqa bi nga xam ne amoon na ko ak yow ci sa bopp ndax damay faral di wax ne si Amadou Lamine euh, du kenn du ne sama digganteeg sama maam la woon wala sama la woon da sama digganteeg maag moom la woon ndax fukki at ak ñett rek la amagun kon muy jëmm joo xam ne ni ma ko waxee rek kenn du ko fàtte ci lu baaxam waaye kenn du ko fàtte ci taxawaayam waaye rawatina dongo Seexul Xadim yi ndax wax dëgg yàlla ku fi mas a jaar rek wane nga sa cofeel ak sa bëgg ak sa taxawu dong yi waaye yàlla da ko cee defaloon tawféex joo xam ne euh, bokk na ci ñi nga xam ne moom rek moo ko mas a yëkkati ay kàddoom wala bokk ci ci lañ ko gën a miine muy lu fi am dong yi moo ko fi def lu ñëpp xam la nag waaye wax gi da cee am solo ba ñi nga xam ne faaw ñu dégg dara ak kañ koy déggee dog koo mën a xam kon muy loo xam ne lu mu yàgg wax la di ko jëfe yit ndax taxawu na dong yi ci ci saayir daan na wax na ñetti yi ku muy tee sa soxla faju doo egsi ci baara muy bu dee soxla soo xam ne daa war a téléphoné day téléphoné bu dee soxla soo xam ne daa war a bind leetar muy signature am da koy def waaye bu dee soxla soo xam ne daa war a da koy def te yaakaar naa àdduna ñett yooyu moom maanaam moom la ñuy fajee soxla ci lu ñu xam la ci des mbirum biir la muy koo xam ne daal dañ koy delloo ñaanal yàlla rek sunu borom dolli ko yërmande dolli ko njëggal ak mboolem ñam fa fekk ak ña ko fa fekk ak ñun ña ko fa nar a waaye noonu la ñuy ñaanalee sunu kilifa gi nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadoul Moustapha moom tamit euh, ni ñenn ji di wax rek dañ ne bu fi nit jógee yow nu xabru euh, mbooloo bari fa ko fa jóge la waaye bu sëggil ndigaale bare kam fa bàyyi moo baax kon Cheikh Mouhamadoul Moustapha li fi bàyyam bàyyi woon mi ngi koy sàmm amul mel na ci yoonu murit rawatina moom lislaam muy am te yàlla man loo ko Cheikh Modou Moustapha te doo ko ci gis moo tax bis bii bu buñ ci accès da nga fi gis ku nekk léegi la fi waa kër Cheikh yi génne doomi sëñ Fallou ñëw fi doomi sëñ Mourtala ak ñeneen ak ñeneen ak ñi nga xam ne lu jiitu may ñëw egsi nañ ak ñi nga xam ne it danañ ñëw ginnaaw bi kon loolu moom euh, li nga xam ne waajuram amoon na ko ak ak ak mbooloo mi ak jullit yi ak rawatina taalibe yi moom mi ngi koy sàmm bu baax kon nañ na ko ñaanal yàlla sunu borom yàggal ko fi loolu te ànd ak wér day jëmu joo xam ne nag ni ko sama waajur Cheikh Amadou Rafa di waxee rek dafa am loo xam ne bala dalee ci nit ngir wax ci moom day jafe koo bëgg ba mu ëpp mbaa koo ragal ba mu ëpp ñaar yooyu nag wax dëgg yàlla mën naa ne dal nañu ci moom ndax ragal doomu aadama moom mooy wekk rek mooy wekk ci niñ ko mën a waxee kon kuñu ku ñu wekk la woon waaye bëggeel gi moom mënu su koo natt mënu su koo yëkkati ci aw tamit kon daal wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla am naa ngeen bokk ci njaboot gi bokk ci ñi doon taxal bis bi itam bis bi dajale ay mbokki taalibe yu bëri bëri bàyyi ko gox yu nekk ndax li ngeen ko doon waajal euh, ci mbooleem jumtukaay yëpp mën nañ ne kon li ëpp daje na fi tey waaw li jiitu ci waajtaay gi damay farale di wax ne nitu yàlla soo ko dee fàttaliku da koy fàttaliku ci la mu doon dund muy jaamu yàlla moo tax alxuraan lañu ñu jiital limu alxuraan yi mënee su koo lim mënee su koo ndax saa boo limee ba noppi rek am ñeneen ñu la yëgal ne def nañ nangam waaye loolu lépp nag dañuy ñaan yàlla rek moo jotale ko ci mboolem ku mu fa fekk ak ku ko fekk ak ñun ñu ko fa nar a fekk tamit wàccaayu àdduna wit li nga xam ne ñun ñi fi desendeegun ñoo koy yittewoo muy wàllu bernde ak wàllu programme ak organisation lépp mat na incha allahu rabbi ba tax bu ñu jullee gee ba noppi ba nga xam ne diggante moom ak fajar jaamu yàlla ak farata amatu ci ci ñun ñi nga xam duñ ay yonent ndax ab yonent moom yàlla da koo farataal ci moom muy naafi la waaye ñun li nga xam ne doonu ko noonu dañuy toppaate rek loolu dafa ñun moo tax ñu ñu xool diggante yooyu fas yéene fàttaliku ci ay jëfam fàttaliku ci ay lu baaxam ci kem kattan ndax xajul ci génn guddi xajul sax ci mennaat koo xam ne euh, bëgg suñu borom defee muy mag mu xàmmee ba léegi ci lu baax la ma sa nekk kon kooku kenn mënu koo fàttaliku ci benn euh, bis wala ci ay heure waaye te teewut nag danañu euh, def benn synthèse rek ci li nga xam ne ak dundam la yaatal ko bi may wax léegi rek sëriñ Cheikh Oumy moom Cheikh Moudou Fadal mi ngi nii di di génn te yaakaar naa ne fii da ngeen fi gis ku nekk ndax ci moom la ak ki fi ki mu fi bàyyi. ndénkaane li moom ndénkaane bi du weesu rek ndénkaane yonente bi alayhi salaatu wasalaam mooy sax ci diine lislaam ak njàngale bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak dundu Cheikhul Khadim muy sunu royukaay ab jullit soo ko xasee doon dafa am lu la tënk te li la tënk du la tënki ba mukk waaye bu tënk ko jotee nag mooy bu ñu eggee ci bis bi nga xam ne ci la ñuy natt jëf yi yow ma tubla sharaayir fa maa loo min quwwatin wala da nga xam ne la la yàlla tere woon lii moo taxoon mu tere la ko waaye la yàlla diggoon tamit lii moo tax lii moo mu dégg la ko kon suñu bopp la ñuy tàmbalee rek doolu góor góorgóorlu suñu diggante suñu borom jaarale ko nag ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam suñu jaarale ko ci suñu royukaay Seexul xa di ñaan nag bu déwénee incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla nga baaxam suñu borom bàyyi fi Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg ñu jiite loolu nag damay faral di wax ne sagub lislaam la waaye sagub yoonu murid la bu nu amoon mel ni pexe a ah, du nu dundi dogalub yàlla ndax mënuñu ko waaye danañu ñaan yàlla mu def kiimaan ci ak dundam ba lu kenn musul dund Cheikh Mouhamadou Mountakha dund ko ndax sagub yoonu murid la sagub lislaam la yàlla ko fi yàlla bàyyi loolu te ànd ak wér ak sunu kilifa yëpp ak jullit yëpp waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. tey gërëmee tey ñaan ñu teewe ko ay déwén déwén. amiin moom nag euh, la daloon sëriñ bi. Mhm. ci yonent bi da ko dal ci sëñ Fallu. dëgg la. sëñ Tuubaa dafa jël léppam jox ko sëñ Tuubaa. dëgg la dafa jël léppam jox ko yonent bi salaahu alayhi wa salaam. dëgg la dara. dëgg sëñ sëñ Alaaji nag li def moom itam jël lépp jox ko sëñ Fallu. dëgg la jërëjëf. fii fi la ko yàlla defee la lépp. la waaye nun ñu àndoon ak moom na xam naa ne as gor la ab jullit la ku bëgg lu baax la li muy maye nag ci darajaam moom kenn du ko may kenn kon nag yàlla nañ ko yàlla fayal la ci daal dañuy ñaan mhm. euh, yéen ñi mu fi baax mhm. yàlla na leen defal jàmm te yàlla jubale leen ngeen xam ne lam ma waxoon rek moo ci ne mhm. euh, jamono dana soppeeku dana yëngu waaye boobaa Cheikh ma ne ko Mbakke mu ne ma kuntu naa na nga sant yàlla waaye bu boobaa nag kuy sa kilifa nun mel na ci jàpp kon nag na ngeen góorgóorlu te xam ne moom wàcc na ndax li mu doon bari nañu ko yaakaarutoon waaye loolu yàlla dogal kon na kon nag ñu ngi ñaan rek yàlla fayal na ko ci barkeb Cheikhul Khadim te ngeen yàgg fi te Cheikh Mouhamed Moussa tam yàlla defal ko jàmm ku neex a jaxasoo la euh, nit ku yaatu naaw la kon na ñu ngi ñaan rek njaboot gi yàlla def ci jàmm nun nag yéen rek la nu am bu ñu sañoon kenn du leen gën wasalaamaaleykum wa rahmatulah. Saliou Mbacké ibnu cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacke waaye ngeen dégg itam kaddu yi am solo yi nga xam ne ni sëriñ cheikh ummi Mbacke ibnu cheikh Modou Fadal bokk nag lépp sëñ Alaaji Bara ñëw na noonu la ko njaboot gépp defee tam ni ko sëñ euh, Saliou waxee yëkkati baat kaddooy seede jëmale jëmuñu tedd jooj mhm. waaye soññe yi ak yóbbal bu am solo bi nga xam ne itam sëñ bi wax na ko jëmale ko ci bis bi waaye jëmu ji tedd ji mhm. yàlla nañu suñ borom defal dégg ak topp waaye yàlla na borom yokk ay leeram yokk ay maqaamam ak ay terangam ci aljana bi jaay cheikh ahmadou bamba xaadim rasul maamam ju tedd ja wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.